del del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling. ñëwal ñëwal. asalaam ak asalaam ak dina am waaw waaye nag kéemaan am na zoro anamu waaye sama ko super daw na yow ah mu ngi nii waa kaay wuy ma ginnaaw yàlla ma sant sama ñaari waajur euh, ginnaaw ma gis ñu sant sama ñaari waajur di ñaanal sama papa fay nag surtout yàlla na suuf ay seen kaw di wax tam maa ngi maa ngi groupe maa ngi sant waa group euh, Fruit Faraj sama waa équipe bëriñ bërigo macha allah maa ngi leen nuyu di wax euh, Souleymane ma ànd ak sama Aziza ki amee solo ñu ànd man kër si wax dëgg man. teg ma si code macha allah euh, pour ma ma am ndam yàlla ma ndam maa ngi wax kilifa yi euh, kilifa yi diine kilifa aada yi ay fas Ouzin Keita ñoo xam ne bëgg Ouzin Keita te yàlla tax ñoo xam ne sopp Ouzin na nga bëgg si combat bi yónnee ma xaalis sama combat luwee samay wul euh, samay set luwee samay kaar te togg samay mën a ma moom dama am daal waa Sénégal waa àddina bi fu ñu bëgg Ouzin Keita ñoo xam ne yàgg na nga bëggal jàpp si bu si so dimanche bi di ñëw bu la sonn yàlla dama may ndam si ko xoolu mbay yàlla incha allah suul ko bu baax suul tànk bu baax suul ma tànk bu baax waaw bu jubli xeet bu jubli mais surtout foofu ñu dem waaw waaw loolu jàppante rek waa solo ki yaa ngi nii ma leen bëgg bëgg kër baa ngi nii ay ay ñoo ñëw ci stade bi maa ñëw ñooy lamb ci stade bi waaw maa ñëw taxaw dinaa la ñu tuusee waa kon ñu tuusee bëri naa la. tey bu subaa sa laaj subaa keneen laa la gën a ñuul suba. waaw bu subaa laa la gën a ñuul. bu bu bu subaa. bu bu subaa da ngay da ngay. sigi ah sigi sigi sigi sigi sigi. écurie bërëñ sa barigo. kii la war a woo ban dëkk kii la war a woo rek kañ ko waaw ñëw ko léegi waaw. ñëw ko ñëw ko waaw Adam ah. mooy Sénégal Adam waaw waaw. mooy Sénégal waaw waaw waaw waaw waaw. nang nang rek nang rek. nang rek nang rek nang rek nang rek nang rek waaw waaw waaw nang rek. waaw jërëjëf jërëjëf waaw waaw. sigi ah sigi sigi sigi sigi sigi. écurie bi sa barigo. kii la war a wóor kañ ko doon. waaw day entraîné loolu la. bu nekk avance bi nga soog wala da ngay bëri. Yeah. Sehr gut. سام بالغوا بالغوا سام بالغوا بي rasta yi ngay jàpp xëcc. yow laa gën a xool caa eh, eh, eh, yow laa gën a xool caa. dimanche naaroo doo bëgg a tëdd. barke Serigne Touba ngay fenn. asalaama asalaama bi ma am waaw waaye ni commande am na zoro anamu waaye sama costume daw na yow ah mu ngi nii waa kaay wuy ma ginnaaw yàlla ma sant sama ñaari waajur euh, ginnaaw ma gis ñu sant sama ñaari waajur di ñaanal sama papa fay nag surtout yàlla na suuf kaw di wax tam maa ngi maa ngi groupe maa ngi sant waa groupe euh, Fruit Baraj sama waa équipe bëriñ bëri go macha allah maa ngi leen nuyu di wax euh, Souleymane ma ànd bu ko sama Aziza ki amee zoro ñu ànd ma ko sama dëgg yàlla macha ànd man teg ma si code macha allah euh, pour ma maam ndam yàlla ma ndam maa ngi wax kilifa yi euh, kilifa yi diine kilifa aada yi ay fas Ouzin Keita ñoo ne bëgg Ouzin Keita te yàlla tax ñoo xam ne sopp Ouzin Keita euh, yàgg nañu bëgg dama bëgg ngeen jàpp si combat bi yónnee ma xaalis ma sama combat luwee samay wul samay set luwee samay kaar te togg samay mën a dama moom dama bëgg daal yéen daal waa Sénégal waa àddina bi fu ñu bëgg Ouzin Keita ñoo xam ne yàgg si combat bi bu la dimanche bi di ñëw bu si dimanche bi yàlla dama may ndam si kaw Pawlish Mbaye bu yàlla incha allah ñëwal ñëwal yaa lekk avance kaay yaa lekk avance kaay del déglu del xool